الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه سبيل الرضوان والتمكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyu bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha alxalifatul am li taifatil muridiya tey jii di quatrième édition conférence annuelle bi nga xam ne daayira du Ahlu Rida mooy daayira bi nga xam ne moo lëkkale sëti Serigne Abdou Diambacké yépp moo baaxoo koo def di ko waajalee màggalu Daaru Salaam yooyu ñu tànnoon thème boo xam ne man nañoo wax ne thème d'actualité la ndax xam nañ ne dañoo jëmmal ay élection présidentielle te ku wax ay élection mun ko ñàkk nga tudd politique looloo tax ñu tànn na bii di al islam wa siyaasa tax bi nag moo weddi Serigne Sam Bousso Abdourahmane yaakaar naa kenn dootu ko présenté bi ndax doomi dëkk bi la di yëngu ci xam di yëngu ci xam-xam Serigne Sam nag mi ngi jaar ci al azar lu azar waaye ba mu jógee demoon na Égypte ba amee woon ko diplôme licence waaye teewul mu continuer di yëngu ci ci ci xam-xam nekk inspecteur de Thiès waaye itam bokk ci rawdu rayaaxin bi nga xam ne moo nekk fii ci ci Touba kon ci tënk sëñ Sam Bousso moom moo war a def waxtaan wi di al islam wa siyaasa bu noppee itam dinañ jox euh, Mouhamadou Sy Konkara mi nga xam ne moo nekk nii sama wetu ndeyjoor moom itamit euh, dana def benn commentaire ci waxtaan wi nga xam ne moom la sëñ Sam war a euh, war a waaye dana ko def dana ci wa mbokk yi teew noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen dokteel ci jotaay bu tedd sant suñu boroom subhanahu wa bi mu ñu defalee tawfeex ñu bokk ci liggéey bi dafa bokk ci li ñuy waajale màggalug suñu maam sëriñ Abdul Qadir radiallahu anhu wa dundu doomu aadama bi munta am benn espace boo xam ne lislaam dugg ca ñun nag léeg-léeg suñu dégg-déggub lislaam mooy des ba dañuy am barab yoo xam ne ak yëngu yoo xam ne dañ naan yooyu yëngutuy lislaam la buñ fa nekkee doon jullit di góorgóorlu di sàmmanteeg njàngaleem lislaam waaye mu am yeneen espace yoo xam ne dañ ne yooye moom mbirum àdduna la boo fa nekkee sañ a mel lu la neex te du tee boo demee ci jàkka ji doon jullit loolu dégg-dégg boobu indi lañu ay jafe-jafe yu bari waaye waxtaan yu mel nii mën naa saafara ci dégg-dégg yooyu te nag waxtaan ngir xel yi gën a ubbeeku gën a yaatu gëna a amul dëgg moo ñuy li gën gëna jariñ ci ñuy soppi suñu doxalin ak suñu dundin ndax nit ki balaa soppi comportement day fekk mu soppi dégg-déggam ak yëg-yëgam ak xalaatam kon thème bi ñu tànn l'islam wax naa ne mënuñoo tàqalikoog moom ndax moo organiser suñu dund moo ko saytu moo koy nos waaye politique it liy tax ñu mën a dund ci àdduna politique moo koy taxawu politique mooy taxawu suñu mbirum jàng politique mooy taxawu suñu mbirum wér yaram politique mooy taxawu suñu mbir yëpp daanaka xëy na ay jamono nit ki mën naa jàpp ne yoonam mën naa bañ a nekk ci politique mën naa nekk ci ab àllam di bay di dunde yoonam du nekk ci mbirum politique waaye jamono ju àgg na koo xam ne foo nekk politique fekk la fa ndax say doom lii leen di jàngal ña nga def man sama yoon nekku ca bu ñu demee ba ñoom la wut ñu am ko la ñuy jàngal say doom ñoom ñoo koy xalaat ñoo koy nas fa ngay bayee sax jàppoon ne yaa ko moom mën nañoo dem ba ñëw ne la fii ngay bayee kat ñun am nañ ci baat kon day mel ni boo defee ne moom nga sa bopp mën ngaa beru sa yoon nekkul ci politique yi léeg-léeg dund gi dina tëddee noo xam ne dana wuteeg loolu kon euh, pour wax loolu rek pour dama ko doon duggee rek ci wax solos tem bi ñu tànn ak niñ tollee ci jamono waaye nag ni ñaar yooyu lënkaloo teewul waxtu wu nekk ñu ngi poser ay question ñu ngi indi ay débat ci diggante islam ak politique waxtu wu nekk ñu ngi koy poser ñu ne nitug diine wala nitug l'islam koo xam wërta yoonam wërta nekk ci mbirum politique loolu waxtu wu nekk mu dégg débat boobu it saa bu ñu demee ba élection jot dafay gën a tar dafay gën a metti débat boobu saa bu ñu àggee ci élection dafay gën a taar dafay gën a metti moo tax yooyu yëpp yu am solo la tax ñu war a waxtaanee thème bi thème bu yaatu la nag wax dëgg yàlla boo xam ne mën nañ cee wax ay waxtu waxtu waaye jàpp nañ ne danañ jéem a tënk waxtaan bi ci tomb yu gàtt tënk ko ci mën nga ñetti tomb rek ñetti tomb rek bu njëkk bi mooy ñu ñëw tuuti rek ni ko sëñ Moustapha waxee ci baat yi ak dégg-dégg yi ci am bu dee ci lislaam politique baat boobu lan lay tekki ak bu dee sax ci léegi nii baat bi lan lay tekki loola buñ ci jógee fam ñuy yóbbu mooy taxawaay ban la lislaam am ci politique boobu boobu danañ ci indi borom xam-xam yi seeni xalaat ci wàllu boobu ah comme fii lañ nekk nag ci xol yoon murit muy Touba buñ dee waxtaan waxtaan bi kooku ñu wax relation wala diggante mouridisme yoonu murit ak politique waaye it ginnaaw ñu ngi jublu si ay élection dinañ jéem a wax responsabilité bi nga xam nit ki nga xam ne ak jullit la responsabilité bi mu am ci élection yooyu bu dee tànn tànn googu ci yan cës laay la war teg yooyu danañ ko jéem a tënk kem li waxtu yi baatu politique xam ngeen ne baat yi maanaa yi muy am day soppiku di leen soril ak ay safaan doonte sax ne kon baatub siyaasa foofu li muy tekki mooy njaboot gi xeet wi walla askan wi nga saytu seeni mbir toppatoo moo tax borom xam-xam islam yi taalif ci ay téere yu bare bari ci sensu siyaasa boobu moo baatu sensu politique boobu am na ibnu Qutaybata taalif na téere bu tudd al imaamatu wa siyaasatu wa ibnul Jawzi taalif na benn téere tudde ko as siyaasatu shar'iyatu fi islaahi raa'i wa raaya kon nga xam ne niti lislaam yi baatu politique bi nga xam ne mooy toppatoo mbiru nit ñi siyaasa boobu moom bind nañ ci ay téere ndax dañoo jàpp ne mooy lubbul islaam maanaam li li bokk na ci li li tax lislaam ñëw mais ci sens bi mu amul léegi nag nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci culture occidentale wala ci tubaab yi siyaasa muy politique dana tekki rek daanaka gestion wala doxalin comme xaw a nuróog baat sa siyaasa bi ma wax léegi dana firi stratégie maanaam aw doxalin woo xam ne moom la nit ki am wala ab parti di ko am wala ab syndicat di ko am ngir fa mu bëgg àgg mu àgg fa loolu mën naa nekk politique waaye nag bi ci gën a siiw nag bu ñu waxee politique nga xam ne ci la xel yépp di dem mooy nooy def ba am nguur wala nooy def ba tëye nguur kon kuy yëngu ci politique léegi sens bi bu ñu nee politique rek mooy jiw de day politique mooy ku nekk ci nguur bi la bëgg cee des wala koo xam ne nekkul ci nguur gi bëgg cee yegg ka ko cay jàppale jumtukaay ya muy jëfandikoo doxalin wa muy dox lépp baatu politique sens boobu la gën a joxe ci jamono ji ñu toll kon buñ dee wax politique nañ bàyyi xel ñaari sens yooyu sens bi ko lislaam jox ak sens bi nga xam ne ci suñu dégg-dégg léegi moom la politique am bu ñu xoolee politique ci sens bi ko lislaam jox dañuy xam ne moom dëgg-dëgg bokk na ci li tax sharia ñëw ndax ñi jàng fiq jàng nañ fiqhul muamala maanaam nañuy jaayeek nañuy lebleek nañuy bayeek nañuy defe ay société nañuy defe ay entreprise loolu ci fiq dañ koy jàngale lislaam da koy jàngale loolu lépp lu yéwénal mbirum nit ñi la tere yiñ tereet maanaam daan yi nga xam ne sariya teg na ko lépp ngir sàmm dundu nit ñi sàmm seen alal sàmm seenu ber comme ni ñu koy waxee yi nga xam ne nit ñi mënuñu koo ñàkk loolu lépp kon mo politique la ci sens boobu nga xam ne moom la ko lislaam jox loolu moom ku ne xam ne ci charia la boobu kon bu ñuy def débattre boobu waxuñu kon bu ñuy débattre ndax lislaam dina politique wala du politique kon waxatuñu sens boobu ndax sens boobu moom kenn discuté wu ko ci sens boobu man nga ne nit yi diine yi sax kon ñoo dàq politique maanaam luy tax nit ñi gën a jag mën nañ ne kon sëñ Muntaxa politique gu sëñ Muntaxa ma des na ko wax politique gu sëñ Muntaxa ci wàllu éducation poli politique gu sëñ Muntaxa ci wàllu développement ndax tey si mun taxaa def na déclaration wan li mu bëgg ci Touba ci mu àgg fa ci wàllu xam-xam wax ni mu bëgg ñu def ba àgg foofu ci wàllu xam-xam tàmbulu ci ab liggéey kon moom am na politique bu leer ci wàllu éducation sëñ Saliou amoon na politique bu leer ci wàllu ndaw ñi ba muy laaj ndaw ñu jox leen ma yar leen na sëriñ Touba doon yare mag ñi kooku amoon na politique bu leer kon kon politique ci sens boobu moom wax dëgg yàlla pour léeg booy waxtaan da ngay clarifier mbir yi mu leer li tax li ngay fi ngay wax ak fi nga waxut politique bu baax boobu moom yaakaar naa ne kenn débat wu ci naan l'islam wax na ci wala waxu ci ndax mooy l'islam ci boppam nit yi diine yi politique boobu lañ kon nag politique boo xam ne nag mooy nag euh, jéem a jot nguur di ci dox di ci xëyee ko gont créer sa parti wala nga bokk ci parti loolu xëy na ci la ñuy débattre rawatina ci contexte boo xam ne laïcité moo fay dox ngay nitub diine loolu débat la yooyu danañ ci ñëw incha allah li ci wax waaye bala ñoo ñëw ci lu ñu gën a jege dañuy ñëw ci loolu débat boobu posé diggante politique lislaam ak nguur débat bu fi yàgg la débat bu fi yàgg la kon dinañ ñëw ci lu gaaw rek ci histoire l'islam maanaam boroom xam-xam yi niñ gise woon nitub diine ak jaxasoo ak nguur dinañ ñëwi ci léegi jamono yu toll ak contexte bi ñuy dund boroom xam-xam yi ban gisin lañ ci am xam nañ ne ci lislaam maanaam bi yonent ba alayhi salaatu wasalaam gàddaayee ba am ñeent fukki at bu ñuy wax kilifa diine war naa jige nguur wala war koo jige nguur période boobu bokku ci ndax ba Seydina Omar di jiite jullit ñi ba Seydina Aboubacar di jiite ba Seydina Ousmane di jiite ba Seydina Ali di jiite borom xam-xam yi leen waroon saxaaba yee leen waroon te nekkoon ñoo nekkoon borom xam-xam ñoo nekkoon nit yi diine yi boobu kon débat bi posé wu doon kañ la débat bi posé bi ñu demee ba xëccoo am ci xilaaf ak lislaam ñu jàng taarixu islam xam nañ loolu bu baax baax bu tax du jar ñuy dugg ci détail yi ca ñun suñ mag ñi dañ ñoo yare woon xilaafa yi amoon ci mag ñooñu bu leen ci xuus sëñ Moussa Gallum daan wax waye jibul insaaku amma sajara waaye dinaa la mosala ci file dara kon ba ay xew-xew amee diggante Seydina Ali ak Muawiya ak ya ca xew ba Yazid ak Imam Hussein ya ca xew ba mujj nguur maanaam kilifteefug lislaam muy pouvoiru lislaam dem ci banu umayyata muy ñeneen ñoo xam ne xam nañ ya ca xew ci histoire lislaam ah foofa nag nguur gi ak sëriñ si am na sëriñ si yu tàmbali maanaam kilifa yi diine yu tàmbali ne nag ñii ñoom nguur kese lañ yor dañuy tooñ kon ñooñu jege leen moom problème la foofu lañ tàmbalee gis ay riwaayaat ay nettali yoo xam ne day ñaawlu lool nitu diine kuy jege boroom nguur période boobu ñu bàyyi xel bu wax loolu ci lañ tàmbalee indi ay xadiis am na xadis buy wax ne sallallahu alayhi wa moo ne sama ginnaaw ay buur danañ fi nekk ku dugg ci ñoom ku dem ci ñoom dëggal leen ci seeni fen dimbule leen ci seenu tooñ kooku doon bokkut ak man dara wax ne kooku bu ëllëgee sama mbalkama du ca root wala yasubillah nee na ku demul ci ñoom dimbalewu leen ci tooñ gi ñuy tooñ dëggalu leen ca fen ya ñuy fen kooku mooy man maay moom bu ëllëgee dana root ci sama mbalka moo ko wax sa yakunu baadi umaraau fa man daxala alayhim fa saddaqahum bi kazibihim wa aanahum ala zulmihim fa laysa minni wa lastu minhu wa laysa bi waaridin alaya alxawda wa man lam yadxul alayhim wa lam yuinhum ala zulmihim wa lam yusaddiqhum bi kazibihim fa huwa minni wa ana minhu wa huwa waaridun am na beneen xadiis boo xam ne yonent bi da cay wax ne ku dem ci buntu buur dana fitnawu nee na jaam bi lu mu gën a jege buur lu mu gën a sori buur gën a jege suñ borom lu mu gën a jege buur gën a sori suñu borom wa masdaada abdun min alsultaani qurban illa sdaada min allaahi bu'dan loola contexte bi ñu ko bàyyi xel buur yi nga xam ne dañuy tooñ nit ñi di jël seen alal te ñun am nañ ci ay exemple waaye suñu waykat yi kay yàgg nañoo dégg ñu fii ku fi fanaan dig jaam daa nga nuñ koy waxee daa nga bay sa kii ba mu ñor bul ceg ci loxoom ne la jël naa ko yu noonu buur bu mel buur boo xam ne doole la am di tooñ kuy nitug diine boo ko jegee muy fen nga di ko dëggal muy tooñ nga di ko ca jàppale yow tëkku yi dugg nga ci su ma ko mooy ci lislaam ñetti xalaat moo fi am ñoo xam ne dañ ne nañ beru nguur ak lu ci jëm ak ñoo xam ne dañ ne nguur ci bo lislaam ci boppam mbirum nguur sax moom daa doonul mbiram mbirum diine rek mooy mbiram maanaam jàkka jaag sa diggante ak sa boroom am ñoo xam dañ ne nag lislaam moom munta maandu ci liy xew ci penc mi ñu ab jullit munta maandu ci liy xew ci penc mi kon ñetti ñett yooyu ñoo ci am xam nga waxtaan yu mel ni doo mën a ñëw nag dugg ci débat yi ne bii moo gën a wër bi dañ koy gaar rek pour nit ñi xam bu ñëwee ci senegal gii nag li doon wax lépp mooy boo demee ci fo fu ne nga koy fekk ci monde islamique mooy débat bi am fu ne waaye bu ñëwee ci Sénégal mu gën ñoo jege xew booy déglu dañ naan nit diine nañ yam ci seeni der nitu diine wërte politique politique ndax li euh, laïcité moo fi dox laïcité mooy diine yoonam nekkul ci li ñuy doxal ndax diine mbirum privé la loolu am na ñu gëm loolu di dund loolu te moo yaakaar naa moo gën a tasaaroo sax kuy suivre rajo yi ak débat bi loolu ngay gën a dégg nit yi diine yi daal nañ yam seen place boo loo wax sax ñu ne léegi bu wàcc boo wàccee sa ànd maanaam nit dina yi wutal nañ leen ànd ànd moom fa ñuy waxee di décider du seen ànd ñoom waaw seen ànd daal mooy jàkka ja mooy seen ànd loolu def nañ ko ci bopp yi ba nitu diine ku dugg sax ci politique léegi am na mbubb muñ la solal déjà wala mbaxanam muñ la solal mbaxanam ku kuñ kuñ jënd ngi nii kuñ gere ngi nii kuñ kii loolu dafa am ci ci ci dëkk moo am nag ñoo xam ne Euh, mooy nit yi tasawuf yi ci boppam ñoom dañoo donn li ci gën a bari dañoo donn position bu njëkk ba ñu njëkkoon a wax ca mag ña ne nañ sori nguur nañ sori nguur loolu am na ci waaye am na fi nag ñoo xam ne ay mouvement islamique yoo xam ne ñoom li bi ma mujj a wax ci frères musulmans yi ñu xame leen ci ñu siiw ci àdduna fii ci senegal am na fi ñoo xam ne ñu ngi yëngutu ci politique te nii di ci diine di woote ne dañoo war a appliquer charia loolu am na fi kon ñetti courant yi ma waxoon ci mon musulman bi am na fi Sénégal waaye nag ma bëgg ñëw traité cas cas yoonu murit ci boppam tàmbulee ko ci Serigne Touba radiyallahu anhu ba ci suñ jamono ji xam naa ne kon jaar bu gaaw lay doon léeg-léeg nag dana am question yoo xam ne jaar ci jaar bu gaaw wóoru ndax man ngaa tarxis <laughs> ndax dafa laaj dal nit ñi xam li nga bëgg a wax ndax euh, dafa dafa sensible bu xoolee Serigne Touba dañ koy tàmbalee moom position mooy dogu dogoo ak nit nguur loolu moom leer na dogoo muqaataa ak nit nguur ndax nguur yim fi fekkoon ay ceddo xam nañ la ca xewoon xam nañ lam daan wax sëñ Mor Anta Sali yooyu jàng nañ ko xam nañ ko moom position leeroon na leer na ci ay déclaration xaaloo leer kan li abwaabi salaati taxus jawaisa turni kulla maaxini fa qultu xasbi rabbi wa ktafaytu bihi wa lastu raadiya xayral ilmi wa diini leeroon na foofu nee woon na moom liggéeyal buur yi liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam doy na ko sëkk ci muy nekk ci wetu buur di leen liggéeyal zahadani xidmatuhu lmardiya an xidmati lmuluki lilhadiya moo ko waxoon man du maanaam liggéeyal yonent bi moo ma dëdduloo ci may liggéeyal buur ngir ay may dem na ba naan ñi nga xam ne ay faasiq lañ ca ku ne xam ne ni ceddo yooyu booba melokaan woowu bari woon na ci ñoom nee na képp ku jaxasoog ñoom mooy buur yi ñoom seen tedd nga fii ëllëg seen toroxtaane yéen a koy bokk wa man yusharikuhum huna fi izzihim yakun sharikahum gadan fi zullihim ku bokk ak ñoom seen tedd nga ëllëg bokk ak ñoom seen toroxtaan moo tax mu ne wajtani boo xultata haulaay moytu leen jaxasoog ñii li annaha min aqbahil asiyaay dem nag ne bu munta ñàkk muutal ko ay condition demee ba munta ñàkk muy nécessité ka koy def na doon ku xam na doon ku maandu waaye boo xamul boo jaxasoog ñoom am problème boo jubut boo jaxasook ñoom même boo xamee am problème kon boo demee ba munta ñàkk na nga boole ñaar yi kon loolu sëñ Tuubaa leer na boo loolu boo demee ci euh, jawharu nafis da nga ko ci fekk kon position boobu mooy position sëriñ bi moom waaye ginnaaw seriñ bi position changé na jamonoy sëñ moodu Moustapha jamono Cheikh Mahamadou Fadel jamono Cheikh Abdoul ba ci suñ jamono ji bu ko toppee chronologiquement dañuy gis évolution bi sëñ jëflante naag buur ngir njariñul yoon wi xam nañ ko jafe-jafe yi mu ñëw ak contexte bi mu dund xel mi ko suñu borom joxoon ak ak ak ak xikma bi mu amoon fexe na ba jaxasook ñoom ci anam koo xam ne da ci doon liggéeyal communauté mouride xam nañ lam ca réalise ak lam ci am ci jamonoy ci jamonoy avant l'indépendance Cheikh Mouhamadul Cheikh Mouhamadou Fadil liggéey bi nga xam ne moom la mooy liggéey yoonu murit bi gënoon a mag muy jumaa ji moo ko loon kon laa ku ne xam ne ne jàppale ne Senghor ca ba mu koy jàppale liggéeyu jumaa ji moo taxoon loolu yaakaar naa mag ñi fi nekk xam nañ loolu moom ci boppam sax ci ay waxam boo ko déggee amoon na conscience ci li mu doon dem xamoon na critique yi nga xam ne am na ñu ko doon yëkkati am na wax joo am na waxtaan woo xam ne ma nga cay wax sax bay wax cité wax yonent bi naan inna allaha la yuayidu hada diin bi rajulil fajir wax jooju waxal na ko boppam kon xamoon na bu baax am na conscience ci li doon def kon Cheikh Abdou gis nañ ko jàppale woon na Abdou Diouf waaye ku gis déglu discours Cheikh Abdou Lahad boobu lu yéeme la ay murit la doon waxal doon xalifab Sëriñ Tuuba mënoon na joxe ndigal ca duñ ca joxe ay justificatif mu def argumentaire tàmbulee fam tàmbulee yaakaar naa discours bi dafa gudd kenn fàtteegu ko ba àgg ci def déduction maanaam dafa def ba conséquence bi walla résultat lii ma wax moo war a doon lii nga xam ne ku déglu ku déglu waxam ji da nga xam ne moom dafa teg am yéen ay boroom yi xel ngeen nii la meloon ki fi jiite woon lii la fi defoon musu fi ñëw na fi inauguré kii moom def na fi nanga nag musu fi inauguré murit yi Tuubaa lañ am ku defal Tuubaa sëñ Tuubaa tax maanaam bu ngeen déggoo logique bi wax jooju da ngay xam ne moom intérêt général la ko taxoon doon wax ci Abdou Lahad nga xam ne murid yi boobu ñu bari nag dañoo jël baat bu mujj ba rek di ko di ko wax wax boo xam ne dégluwuñu discours ci Abdou Lahad boobu te booba bu fekkoon ne kuy wax ak ay taalibe doon joxe ndigal est-ce que argumentaire bu gudd boobu dana jar mu def ko maanaam wax lu lii fi mu war a tege dana jar mu def ko comme amoon na conscience ci li mu doon def moom intérêt jaxasoo bu mu jaxasoo ak wala jàppale bu mu def daf koo defoon ngir intérêt général yoon wi loolu leeroon na naññi ci jamonoy Cheikh Abdul Xaadir la li ñuy wax neutralité tàmbuli am Cheikh Abdul Xaadir moo indi mudaaraat maanaam ñoom nañu mudaaraanteeg ñoom ci loo xam ne du yàq suñu diine yaakaar naa dégg nañ wax jooju boobu lañu gis tàmbalee gis nag neutralité bañ a far fenn moslaa moslaa boo xam ne du du nekk ci maanaam ala xisaab bi sa diine du nekk daal loo xam ne sa diine moo ciy loro waaw lu di sa diine nangu daal mën nga ca laa ku gis ne bañ bu ñëwee ba ci jamono yi Cheikh Salih ci la neutralité boobu gën a feeñ moom ci la gën a positionné wane ne ñi fiy ñëw ñëpp ñi ñi ku fi ñëw rek samay taalibe bi dana dana nekk ca biir moom wane kon moom dafa dafa neutre mu mel ne neutralité boobu nag nga xam ne foofu la commencé ba suñ jamonoy tey jii maanaam euh, xilaafa gi jëlul benn yoon position bu leer déclaré jàpp fenn far fenn bàyyi fenn loolu ku ku ku ku topp bu baax da nga gis da nga gis li ma wax waaye nag damay wax ne neutralité positive <laughs> sëñ Saliou ñoom yàlla da leen a may ñu am personnalité boo xam ne duñu wax waaye xam nañ liy jariñ réew mi ci ñu ngi doon liggéey ci luy jariñ réew mi wax jooju ñu bari doon wax dama koy faral di wax ji mu doon wax ne man lislaam maanaam lu dul lislaam aw ma ci defar aw ma ci yàq wax jooju ñi ngi koy wax mais waxu woon ci politique ñu bari xëy na loolu dana leen jaaxal su ma ko waxee waaye ku ko jege koo xam ne moo ko ko moo ko ko wax ci kooku ko dégg rahmatullahi nekkatu fi waaye mu ne ko ba may wax euh, lu dul lislaam aw ma ci yàq aw ma ci defar mbirum politique taxutoon ku fàttaliku boobu mu fi mu fi mu fi sam bu fi eh, pape bi doon war a ñëw ñu bëggoon mu wax ci loolu comme mbirum diine jeneen la waaye mu ne mbirum politique su ma ci waree wax dinaa ci wax loolu wax na ko nit su ma ci waree wax dinaa ci wax kon moo waxee neutralité positive léegi nag problème bi ñuy dund mooy dañoo bëgg neutralité boobu nekk lu ñu imposé nga xam ne doo dañuy dem ba dootuñu ko ñimeeti wala dootuñu ko sañati maanaam dootoo sañati jàppale maanaam day mel ne daal léegi daal mbir mi lu lu ñu imposé la waaye du caagi noo ko position bu nit ki jël ci conscience xam na lii moo gën ca loolu lépp xam na duñ dugg ci détails yi xam nañ maanaam manipulation yi ñuy def ci média yi wax ndigal amatut ak yooyu yëpp kuy wax loolu moo gën a xam ne ndigal léegi la gën a am waaye média day def loo xam ne nit yi média nañ ma jéggal mën nañu fekk lu dul dëgg ñu di ko répété di ko répété ba nit ñi gëm na lii dëgg la maanaam yow sam xel da ngay xam dara ne lii baax na média bi saa bu xëyee ne la lii baaxul saa bu xëyee ba yow la nga xamaloon sa bopp nga mujj weddi ko <laughs> dañuy joxe misaal ci média ci maanaam ñeent ñeenti sàcc yoo xam ne dafa am ku yoroonum xaram ñu ne daal xar mii nañ fexe ba sàcc kenn ki da ngay taxaw ci buntu këram kenn ki dem ba sori keneen dem ba sori keneen dem ba sori kum romb ci ñun rek nee ko yow xaj xaj xaj bi ngay wommat foo ko jël mu génn waa ji ne ko waaw xaj bi ngay wammat moom foo ko jëlee waaye eh, kii dafa dof sama xar mi ba di ko jaayee ma xaj bi ngay wammat dem ba romb keneen ko ne waaw waa bi sa xaj bi moom mu ne ah waaye ñii daal dañ may fonto dem ba romb keneen mu ne ko waa sa xaj bi mu ne waaw man mi moom ah li ma yor <laughs> est-ce que jaawaliwu ma dem ba romb keneen fu mujj ko mu ne ko sa xaj bi mu ne ah ñii ñëpp daal mënuñoo maase xaaral ma wëlbatikuwaat ndax man est-ce que jànn xew ma wala man nga xam ne kon moom li gëm li ko wóor ni ñu koy répété di ko répété day dem ba gëm ba ba gëm ba ba li mu xamoon mu weddi loolu média day joué rôle fi ne nii bari na bu ñu bëggee dara ñu àgg fa dañ ñu fay jiitu bu ñu bëggee ndigal ñu ko def waaye ku ne xam na ne tey bu Sëñ taxaw waxoon bindu ji leen dana am lu mat ñetti million yoo xam ne bokkuñu woon ci fichier ba dinañ dem bindu ji ngir kàddoom googu bu ne woon nañu woteel diw maanaam bu bu bu mu yee cent mën naa am dix yoo xam ne ñoom dix yoo xam ne moom maanaam dugal nañ leen am brigade nañ leen ci parti ba gëm gëmloo leen bañ ne maanaam man mbirum mbirum politique moom duma ci dégg ndigal waaye dana am quatre-vingt-dix yoo xam ne ñoom danañ lu ndigal loolu. loolu réalité la mais nag média bi du duñu wax loolu moo tax pour loolu rek xam naa ne maa ngi def digression di euh, maa maa ngi génn waaye dama la bëggoon wax rek ne neutralité bii choix la boo xam ne xilaafa ko def waaye wërta nekk ñu impôt ndax nag tey ne wóor na lii moo gën ci réew mi kii moo gën ci réew mi kii mën naa lor réew mi te nga xam ne boo waxee mën nga ci dara bu boobaa nag est-ce que neutralité boobu dana ko dana ko laaj yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne euh, dafa mat a teg rek àggaguñ ci may dafa mat a teg ci taabal ji nag dafa mat a dafa mat a dafa mat a junj dafa ma ci junj kon xëy na loolu maa ndax waxtu ma joxoon mel na ne mat na kon damay jeexal rek tënk li ci des ci responsabilité bi am ndax buñ dee wax nag ñi ngi ci contexte bu lay donte danga ne li li ñi li ñuy atamu naa ku fekk ab ab ab ab sàcc nga jaay ko jaasi jaay jaasi ayut ndax nit ki mën na cee defar am xaram bu dee ko sant Mbàkke yi tabaski ki jub nga jaay ko jaasi ayut ah waaye ab sàcc nga jaay ko jaasi xam nga ne lam cay def mooy kon lu mel noonu sa sa wote kon seede la sa seede boobu dafa am lu cay toftalu kon nga xam ne responsabilité bu rëy la ci kanam sa borom bu ñu nee responsabilité nag mooy lu ñu lay laaj ëllëg sa kanam sa borom kon nag léegi ngir daaneel mooy ginnaaw responsabilité la ngir nga tànn tànn bu baax fan la war a tege yooyu dañ koy tënk dañ ciy tënk ñett rek xam naa ne waxtu yu <laughs> ñett nañu maa ngi jégalu bu baax a baax. mooy ba ca njëkk mooy nga am conscience ci ne li ngay def lu am solo la lu danger la yaa ngi jublu ci li maanaam sa wenn carte bii wu rëy rëy bari na ñoo xam ne ah dañ naan daal wenn carte bii amul benn njariñ sama wenn carte bii amul benn njariñ waaye boo gëmee ne ginnaaw wenn carte mën naa jox nit ki réew mi mën ko koo xañ jàppal ne carte woowu yow la sa carte wee ku gëm loolu carte am woowu du ko foye ginnaaw ñaar buñ ko dee xëccoo bii bu kii amee juróom fukk maanaam cinquante pour cent bu ca wenn tegee mu jël réew mi yépp gëmal ne sa wenn woowu moom la yow yow yow yaa yor wenn woowu bu ko nekk gëmee loolu bu boobaa buy tànn dana ko bàyyi xel waaye bu fekkee ne jàpp nga ne sa carte bi moom amul njariñ du tee kenn falu mën nga koo jaayee ñaari junni mën nga koo jaayee ñeenti téeméer sax mën ngaa toog sa xëy xëy amoo oto tey dama dugg saret wate jëral wate ji jëraluma dugg saret wala nga dem ci biiro de wet ñu ne la yow day euh, daaru mën naan nga waroon wote mais yóbbu nañ la saam nga ne ah loolu di jëraluma ko ñu bàyyi ko xel jar na ko su fekkee ne gëm nga ne am na ku baax ku baax ci réew mi seede boobu bu ko xeeb benn boobu bu ko xeeb jar na ko beneen bi mooy maanaam conscience laa bëgg a wax rek foofu yëg-yëg bi mooy tax nit ki mën a tànn tànn bu baax waaye bi ci des mooy mu xam loo am conscience te xamoo yan critère lañ war a tànnee du sotti critères yi ñu war a tànnee duñ ci mën a dugg ndax waxtu yu ma tewu ko ah waaye au moins nga xam programme yi ak kenn ku nekk daal la nga am yaakaar ci moom ñetteel yi tax tànn bi baax mooy nit ki bañ a topp intérêt yi boppam maslaha waaw loolu nag benn bu ci nekk dama koo tudd noonu du jar ñu koy détail mais loolu li tax li war a tax mu am nag mooy nit ñi xam loolu nag lii tax mu mën a am ci jamonoy démocratie jamono ju toll mooy média bu jub média buy liggéey média bu yee nit ñi moo tax démocratie média am ci solo saa bu ñu demee ba média bi waxatuñu nit ñi dëgg waaye dañuy propagandal bu boobaa démocratie dootu fa nekkati ndax dañuy wax dañuy wax démocratie du démocratie du libre choix rek. man nit ki mën a tànn rek waaye tànn ga fu mu lale fu lu lu ko lu ko kii maanaam xam nga ki nga xam ne dafa tànn li ko neex waaye ba muy tànn la ko neexit ngir ceeb a tax mu tànn ko am na ca liberté mais loolu taxul ñuy wax démocratie démocratie nit ki day xam bu baax fi muy teg tànkam moo tax rôle média am solo moo tax média bi am nañ responsabilité bu baax a baax a baax a baax a baax ci fii ñu toll muy leeral nit ñi jàngal nit ñi conscientiser nit ñi moo tax am na benn tubaab buy wax ne être informé c'est être libre être informé c'est être libre ki am information mooy ki libre mais yow ñaar ñoo xamoo xamoo ci kenn sa liberté bi lu muy jariñ maanaam man daal ku ma ci neex ma tànn la waaye ñoom ñaar xamoo ci kenn léegi kon sa maanaam euh, sa liberté boobu nga am ban njariñ laa ban sens la waaye ñu xam ne nag responsabilité boobu ma wax. kenn ku nekk am ko nit ñi yemuñ ci responsabilité citoyen bi nga xam ne kenn kenn la jubbu boppam la wala moo soxnaam bokkut ak citoyen bi nga xam ne dañ koy déglu mbooloo da koy déglu muy kilifa ak diine kooku responsabilité moo gën a rëy sëñ Mbàkke Buso ci xasidaam googee mu waxoon jëmale woon banu Balla maanaam banu la moom kilifa sang sang su baax si <laughs> am na lu mu ca waxoon ne woon na fa in tarshudu yarshud fi amun bi rushdikum wa in taakisu yaakis ulufu durubi ne ah yéen day bu ngeen jubee bu ngeen jubee ay mbooloo yu baree bari danañ jub ci seenu jub waaye bu ngeen defee safaan nag ay junni junni danañ defi safaan loolu responsabilité bu rëy la ah ci xam nañ ci dara da ngay wax ne ah sëñ jiw ginnaaw moom dana ko def ah <laughs> yow daal <laughs> moo tax ku ñuy déglu ku ñuy topp ku ñuy roy sa responsabilité daa gën a rëy bi ci fiq dañuy bàyyi xel loolu xam nga woor juróom-benn fan ginnaaw bu ñu woree sësale ko ci nga ayut waaye dañ ne bu dee imaam ku ñuy roy la dañ koy sib ndax dañuy bañ ñu defee ne daa war xoolal loolu maanaam atte léeg-léeg booy kilifa ñu lay déglu kooku nag wax dëgg yàlla waroo xëy wax lii ñaari weer ñett nga wax safaan ba tegaat ñaari weer waxaat safaan ba boobu dafa yaa ngi lor ay mbooloo mbooloo mbooloo mbooloo ñu bàyyi xel responsabilité boobu xam naa yooyu kon li ñuy li ñuy li ñuy xaatima bi rek li ñuy jaaxale rek mooy ñeenti mbir yoo xam ne moom dama jàpp ne war nañ ko bàyyi xel ci élection yi ñu jublu si ba si njëkk mooy ñu bàyyi xel ci tànn bi contexte bi ñu doon la réew mi fi mu toll am ay ressources àdduna bi jublu ko ñëpp bëgg fee am loxo ñëpp bëgg fee am baat nit ñi war nañoo bàyyi xel kon njiit ya ñuy tànn ñaareel ba lépp lu ñuy def nañ ko def ci jàmm ak ci dal yonent bi moo waxoon ne inna allaha rafi rafiqun yuhibbu rifqa wa inna allaha yonti ala rifqi ma la yonti ala al unf yàlla dafa dafa nekk ku ku teey ku dal dafa bëgg lépp ñu def ko ci teey akuk dal nee na yàlla dina joxe ci ak teey akuk dal joxe ci violence ma la yonti ala al loolu ñu bàyyi ko xel ñetteel bi ma bëgg ñu bàyyi ko xel mooy réseaux sociaux yi nañ xam bu baax niñ koy jëfandikoo mu ngi indi ay ay ay ay garaawaali yu rëy ca ñàkk a xam niñ koy jëfandikoo rek la ay bokki neen politique tax kenn ku nekk nekk sa page tëju ci sam néeg di wax ay ñaawteef yoo xam ne ay millions kiy dégg ci sa mbokk ngir politik réseaux sociaux ko fi indi mën nañ koo moytu politique bi dafa doon lu lu lu lu lu passionnant wala lu xamu ni ko tubaab bi ngeen koy waxe dafa bari passion waaye ku ne xam na ne réseaux sociaux yi am na lu baree bari lum mu ci comportement nit ñi ci dund nit ñi waaye buñ tollee fii nag ci lañu war a gën a am ak dal xam nañ koy jëfandikoo bi may mujje mooy nag particulièrement nag Touba Touba Touba moom li ma ciy wax ci wàllu politique bi dama dama koy gàttal rek jëmee ko ci ñiy tànn jëmee ko ci ñiy yëngatu ci politique ci dëkk bi jëmee ko ci autorité yuy organisé ci dëkk bi li may wax ñi nga xam ne ay dañuy tànn ñoom ay électeurs lañ mooy ñu jëfee ndigalul Serigne Touba lépp lu ñuy def ñu def ko ci yar du ma ne politique lu ma lu maanaam lu ma neex sañ naa koo def ci politique même loolu bu amoon Touba moom du lu la neex sañ ko ko fee Touba doone fële ña ngay yenuy jaasi ña ngay taali pëne kon Touba nañ ko fi def tubaa dafa am orom nañ bàyyi xel ormay Touba buñ ñëwee nañ ko def ci yar ci teggin namu ci jàmm loolu nag ci réew mépp lañ ko war a def waaye particulièrement ci Touba Sëriñ Touba dafa wax ne inna salaamata wal aafiyata xayrun min aksihima jàmm ak aafiya moo gën lu dul ñoom ñi nga xam ne ay politiciens lañ ci dëkk bi li may ñaan moo ñu jiital intérêt yi Sénégal ak intérêt yi Touba bañ a exploiter daraja ju ñu am ngir seen intérêt yi bopp nañu jiital bokk gi leen yàlla boole muy bokk gu sell guñ munta xajamal bokk gu sell guñ munta séddoo sëñ Touba miñ bokk mënuñu ko séddoo nañ ko jiital ci lépp waaye bu politique ñëwee nga fàtte bokk gi nga bokk ak sëñ Touba nit ki loolu ëpp naa def ëpp naa def kenn jëru kenn jëru lenn jëru nañ xam nañ bàyyi xool nañ bàyyi xel xoli xoli murit yi ñuy mettital murit yi buñ déggee lu ñaaw ci Touba day metti seen xol bal ma maanaam euh, li may wax ñi ñi ñi ñi organiser ñu bàyyi xel ne Touba ay citoyen ñoo fi dëkk doomi réew mi ñoo fi dëkk yu bëgg a participer ci ni leen ko yoon maye nañ fexe ba organiser ko organisation boo xam ne dinañ mën a woote ci jàmm ñibbi ci jàmm ñu bàyyi ñu jox leen seen droit boobu loolu laay ñaan loolu lépp mën nañ koo guddal waaye xajatu fi ñu ngi jéglu ñëpp di balu ak ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kàddu yi sëñ Sam Bousso Abdourahmane yéegat kenn ku nekk suñu mën na see gis boppam ndax fàttali ni lislaam ak politik ñoom mëneesu leen euh, tàqali loolu sëñ bi duñ def lu dul delloo la si njukkal politique ñun ñi ko jaa ngi woon di ko jàngale ci wàllum tubaab ñeenti mbir moom moo ko lal ci tubaab yi bi njëkk mooy philosophie droit wàllum yoon ñetteel bi di sociologie ni ñuy dundee ni ñuy jëflante suñu dund bés bu nekk ñeenteel bi di économie moom mooy wàllum koom bu ñuy wax science politique ñeenti mbir yooyu la ñuy wax te benn bu si nekk si yooyu lislaam moom da cee am gis-gis ñëpp xam nañ philosophie l'islam moom yàlla kenn la moom loolu mooy li jiitu lépp moo yónni yonentam jox ko nag njub loo xam ni dañ ko war a topp am philosophie l'islam moom mënees na ko tënk si loolu wàllum droit l'islam moom it daa am charia moom loolu lu leer la wàllum sociologie jëflante yi ñuy jëflante loolu lislaam daa am nu mu ko gisee économie moom wàllum koom moom li si gën a wér si lislaam mooy lislaam nanguwul riba te bu ñuy wax politique dañuy wax wàllum ndogal ak ndigal ana kan moo yor ndogal li ana mooy digle ñuy topp wala ñuy tere muy euh, muy tere ñuy ba moo tax lislaam sëñ bi fàttali ñu rek jëflante bi muy jëflante ak buur yi ndax dañuy ne ci ñoom wala dañ leen di sori mu am gis-gis yoo xam ni indi na ko si lu mel ni imaam Ghazali moom ni mu ko gisee woon fàttali nag Cheikhul Khadim moom it euh, lam ca wax. benn waaye dafa wax ne jullit yi bu ñu sàgganee ba ñu dul jullit jiite leen wala yoon wu dul yoonu lislaam jiite leen fi ñuy mujjee mooy ñàkk seen diine ndax yoon wi ñu leen di rëddal. dinañ leen diggal lu yàlla araamal ñu koy topp dinañ leen tere lu yàlla daganal ñu koy ba su ko defee seen diine rocceeku xam nga ñun suñu réew yi tey nga xam ni sëñ bi fàttali na ko léegi ñun réewu laïc lañ moom lañ bind ci sunu constitution sunu sàttum réew ne ñun ay laïc lañ laïc nag mooy diine moom bokkut si ni ñuy doxale sëriñ bi leeral na ni fii ci Touba euh, lislaam ak politique mosuñu fee tàqalikoo it ndax Touba daa am ndigal nga yoonu murit dafa lalu si juróom-ñaari mbir dafa lalu si xam-xam lalu si tawxiid wéetal suñu borom lalu si sunna dellu si waat si yonent bi sallallahu alayhi lalu si topp lu dagan bàyyilu lu lalu si liggéey lalu si topp ndigal ak joxe àddi sëñ dafa def ñu bàyyiloo xel si bu ñuy woote comme élection day waajee dikk nii bu bàyyiloo xel ne kenn ku nekk yow sa xel nga war a demee waroo def lu la neex rek parce que jullit yow danga am responsabilité boo xam ne di nga wuyu sa kanamu boroom te nag ñu bañ rek topp yaa ma neex moo ma neex kon booy demee bay tànn yow na nga xool bu baax ndigam yaa ngi ci yoon wi nga xam ne mooy siraatal mustaqim bi jullit war wàcc te du romb mukk dëgg ak lu baax mais foofu sëñ Samb man dama am dama am lu ma fa lu ma fa jaaxal lool ndax li nga wax mooy li war a ne mais li ne dafa safaanoo lool ak ak ak mbir moomu programme yi dañu ko war a jàng bu baax xam lan moo ci ne leer nañ ndax sëñ bi fàttali na ko léegi yow carte bi ngay jël dugal ko ci biir urne bi noonu ci kees gi dugg ci mbañ gàcce gi yow rek ak sa boroom loolu malaaka yi bind nañ ko te suñ borom na la ko laaj su fekkee danga dooleel yow danga dooleel kàccoor ah boobaa nag yow loolu di nga ko di nga ko layoo ñu nag sëñ bi da koo leeral léegi politique moom ñëpp a koy def te xam nga dañ naan politique gu santé politique gu éducation politique gu euh, mbay politique gu napp politique gu avion politique gu yaa xam lu ne si àdduna il faut nga rëddal ko politique politique boobu lalu si stratégie lalu si planification lalu si jëmmal ko lalu si saytu ko lalu si it nan ngay fexee ba mu gën a baax juróomi mbir yooyu moom mooy liggéey da ngay teg stratégie xalaat ko bu baax li ngay def nii nga tëral ko plan plan bi mooy kañ laa koy def nan laa koy defee ak yan jumtukaay laa koy defee jëmmal ko nag léegi jëf ko jëf bi nag doyul de léegi il faut ngay saytu seet ndagal la nga la nga plan la nga planifier woon ak la ngay jëmmal nii ndax méngoo na lan moo si lu baax ñu téye lan moo si lu baaxul ñu dagg sànni ba dëgg-dëgg bu bu ko indiwaatee si Touba. Euh, daf ñuy ñun ñëpp tey lay jàmm ndax tubaa la taxoon ñu sanc ko loolu ñun dañu war a laaj suñu bopp xam nga sëñ Touba dafa nii doomu aadama mu ne amul yeneen noon yu dul ñeent yi yo mu jëlee sa nashhadu ba ne ca surat suratul munafiq an nafsu ash-shahawaat ash-shaytaan an nafsu ash-shaytaan al hawa ak dunya sëñ tubaa nee na yooyu mooy noonu doomu aadama seytaane bànneex bàkkan at sëñ tubaa lu ko taxoon jóg mooy jëlee fii di nga am euh, toxal aada teg ibaada moom loolu moom looloo ko tax toxal aada jëlee fi aada teg ibaada aada bu méngoowul ak diine mu toxal ko saxal diine mooy keroog li benn kilifa doon wax ne yoonu murit mu toll nii am jafe-jafe bu mag ñu ko ah jafe-jafe mooy lan mu ne jafe-jafe bi mooy bëgg daa jiitu xam loolu indi xër boo xam ni dafay indi réere mbir ñu war a dellu si waat si lu gën a bunt bi moom mooy xam bunt bi mooy xam-xam bunt bi mooy xam-xam boo xamee nag sëñ bi nee na léegi maa ngi lay woo si nga jëfee ko ndax xam-xam bu amul jëf moom du dara booy jëfee it na nga ànd ak ay teggin inni ala ilmi wal amali walla adabi ñu ngi ñaan suñu borom mu may ñu dégg ak topp te leeral bu baax li ñuy def suñ boroom saxal suñu tànk si yoon wi nga xam ni moom la ñuy topp ba mu gërëm ñu ba ñu am texe daaray wasalaamaaleykum wa rahmatullah